Thank you. درجة فرنتو njariñ takal xamal ne ab sëriñ du bëgg nit ba faam njariñ jox ko te toppal ndigalam kem loo defal nag sab sëriñ am na na toll ci njariñ loo defal nag sab sëriñ boo ko bëggee dookaam ab tarata ñàkkul dara waaye ku saytuwul dara doom ja njaaya ma dara lii ma taxam dama dëggam ku jug ba dem fi tarata te boo dara du bëgg tab sëriñ ab jaratan dug joxe sing neen yëfam soo bëggatee yow seen ndaw soo ne moo gën ndaw bul daw di jëm jo ndaw dawala daw di canam soo bëggatee la ni njariñ sisab sëriñ jox koy njëriñ sëriñ ku koy joxi njëriñ mu ne la jox koy njëriñam ku yor yëfam nga yor sa yëf ba noppi làq nag sa yëf di laaj yëfam yaa gënu dof ndekoon sa xol du ko xalam bol jey sa bopp ba kanax xamal na gedd yeefu la jox lu dul li ngay jëf ak a wax ak dëgg rek am xoram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 yàlla li lee te kenn di ning ndogalam aljana ak tëfa ca jëm sawara ñaari barab yi boo ci jëm dalal ab lar na bay rek ko sasam te bañ añam jekki di soññi ab añam te bañ bay gàccee ma jam bayala bay ta muñ a muñ ngir ñi toggale añ baykat bu ne toggale añ ne toore kumbayam murit loolal ak bàyyi ko te soñu boppam waru ko yow jébalul te bàyyi ko ngam sab sëriñ ñaw ndigalam sëriñ bi kenn la maasa muslam te doom moo jiitu sang ya dee fa dégg ak yu nu gis mboolem sëriñ bu kadab maasi na sakku ku mel ne Ibra Faal ak Seex ak Ibra Faal ti nu gis sëriñ si yéen a ngi nii te ngeen a xëy daje bis te di def nii def jébbal ko seeni kurus da yokku diina deful warsak di guddalu fan di fekk la rak te ku wet mos ko mos ma seeti ko ngir suukar la waaju ko mos ma seeti faw ma sel bul ko laxas ko fas ne bamba sama sun baay dëgg jógal ànd ak sa jëmm te dem lambar na del sinu gis sëriñ ba jar xëy na mes dog dogal way di laa jege wut baam téeméeran mi ngi nii sëriñ la jar la xasi rafle ka xiif ak amar ngir bëgg ko am ba dee fa jëlee mi ngi nii sëriñ yaanu rokkas yaanu roo fa guyu yaatee noof yaanu te xëy yaa gën baax doo fecc walla doo baske no doo dige war kuréel yow ak mën a yem yow a way ci baax kuréel yow ak mën a day dig ndalaf lu rafet dellooti ji bon mënam yow rek ka way ci lu baax koo xas na jas jëme kaw kaw rek la xala jëm nuraanu mu kari jaaja sant naa la baax rabbi bi ma yasnarawul lasqaana qad fajaa bi jaayi afdal liman lillahi qad lajaa rabbi bi ma yasnarawul رزقان قر فجاء بجاه أفضل لمن لله قد لجا حمدي لرب الكريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتي الملا محمد الله الإله الذي همت موائبه لجملة الخلق ما يختار ما البراء ناجيت جلا ومن وكرمني تكريما وكل لي من لقى البرياء رحمن وابن جميع خلق رحمة ملأ يغني عن السلم القرآن قرأ هد أمة المصطفى عن كل مفسدة وترم الخلق يا من جدهم بدأ يا مالك الملك يا من جلى الخوادل ارحم جميع الورى يا ديان ردأ القلب من درر بجاه أفضل من لله خل جاء جرجف برم توبا جرجف برم توبا جرجف برم توبا جرجف برم ab taalibe rek la sëriñ bi di waxal ndax liggéey bu toll nii ñi ci tudd ku toll ne Sëriñ Tuubaa ñi ci tudd ku toll ne Maam Cheikh Ibrahima Fall dara jiitu wu ci rek wane ak taalibe loolu mën na am mode mën na am modèle mën na am nuñ ko mën di gisee waaye lu ci figuré rek yar ak teggin ak taalibe képp la war a màndargaal loolu nag euh, moo sababoon ndax lu yàggu dara am na fi télévision yoo xam ne am na ay nit yu ñu toogal jotaay waxtaan ak ñoom ñu am ay kàddu yu yëkkati mu ñakas lool ci lu jëm ci kilifa ku mel ni maam Cheikh Ibrahima Fall sëriñ bi sàkk woon nag njabootam gi jóg di ko aaral loolu tey bu ñu tuddee Cheikh Ibrahima war a tur yëkkati turu yàlla bi kon doon na laaj njabootam boobu ñëw saytu ndax na ko sëriñ bi bëggee ña nga càmm déet alhamdulilahi rabbil alamin ko gis ni ñu tuddee fii yàlla xam ne loolu yéen a ngi def seen kem kàttan waaye na gën a rafet na gën a baax na gën a dëgër ndax loolu ci sëriñ bi bëgg moo sababoon tam journée culturelle Mame Cheikh Ibrahima Fall bi ñuy def le 20 avril bi ñu jóg incha allah ñun suñu ndaw fii ci daara ji moo nekkoon sëñ mbay mii loolu laa tax Abdou Mbaye sëñ Abdou Mbaye ñu bëgg bëggoon a jaare ci moom jottali ko ndigal yooyu sëriñ bi santaane ci dëgëraatal pas-pas yi waaye yeesal taalibe yi te fonk ko tey wane Cheikh Ibrahima Fall ci jëf ak ci ay wax waaye nag leeral ko tam liggéey boobu fa mu toll ndax daara alxuraan joo xam ne sëriñ Mountakha moo ñëwoon teg si xeer wa sàkku tam mu doon benn bunt ci banqaasu université bu mag bii nii waaye dañu bëgg itam jeneen daara joo xam ne soxna yi ñoo fay nekk sëñ xàbban mi ñu dénk liggéeyu njàngu alxuraan yi ci Touba war a ñëw teg si xeer bi loolu nag ñu doon sàkku mboolem ñi nga xam ne ñooy ñooy taalibe yi moo xam muy njabootum Serigne Touba ak njabootum Mame Cheikh Ibrahima Fall te loolu lenn la ñu ñëwoon fii ngir tëttali leen kàddu yooyu waaye tam sàkku ñoom ñu xool taxawaay yi ci am loolu moom seen mbirum bopp la waaye ñun nit léegi rek ak wax gi ci kàddu sëriñ bi moo ñu ci war bu ñu ko tegee ci loxol sëriñ Abdou Mbaye moom rek mel na ne moom la ca des ab cere ma bëgguma gën a guddal te di santaat bu baax di wax ne lii ngeen def yéen sa yéen rek seen jaam wàcc na ci ba ngeen nammee nekk ay mbooloo yu fasanti ko waaye ngeen namm taqaloo loolu mooy la suñ borom santoon yéen bi salaay salaam ci digal ko jullit yëpp nekk benn kon nag yéen gàcce nga laa ma yàlla na leen suñ lafal cat te may liggéey bi mu egg fa ngeen xam ne fa ngeen ko yéene te seytaane bañ ci am wenn wàll salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu waaw jërëjëf